yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina nag ñi nga xamante ne bii revue de l'arène benn yoon duñ ko raté mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen wante man tamit mbégte ak contentement laay am heure bu ma feggoog sama rakk ji nga xamante ne bii mooy ajaratu Ndeye Mbacke Diop tey nag daa mel ni dangaa dellu sa kër maam de. damaa dellu maa ngi nii Mbacke Mbacke bu mag bi ah comme ni nga ko waxee rek. dañuy mm. kontaan bu baax di janoog yéen chaque jour. ni leen li xew ci làmb nag loolu mooy suñu jitte noonu daal di dugg ak yéen ci journal dañu sant di gërëm ki nga nii comme ni ma ko waxee feccum liir bu neexee mbay Babacar yaa jaatee ca mbagg ya ca mbagg tax na Uri Chador dem mu des baa revue bi ginnaaw moom mi ànd ak gàmbu complet boobu indi ñu vermicelle Chador macaroni mhm. Chador mhm. spaghetti Chador ñu ne déeta waay mu andi li nga xamante ne bii mooy attaaya Chador mu ne déeta waay au Kayar daal di ñëw au daal di ñëw moom tamit di ndox mi nga xamante ne bii set na sell na neex na oyof ba pare ñi jàppal au Kayar ñëpp xam na ne au moo fi mën moo gën a neex ci ndox yi. Mhm. noonu laay def ne saraax ci journal suñu làmb kam xëyee ci xëtam bu njëkk nag mooy Ama Baldé sëll bu ndaw ba ca Pikine B52 borom Mbour Géej BG2 de Gaye numéro 2 borom Géejawaay. Mhm. Modou Lo 2 ans à trois ans d' absence dans l'arène. da nga koy xam ne nag mooy retour risqué des VIP Mbaye Babacar. mu nar a nekk retour ba nga xamante ne bii amateurs yi ñu ngi koy xaar ndax macha allah mën na nekk retour yu neex wante ñoom ñooñu ku ci nekk xaw ngaa gëj ci làmb ji ki nga xamante ne bii mooy Bombardier ba bam gëjee ci làmb ji ak léegi def na ñetti at fi mu toll nii nag Balla Gaye la war a dajal le 31 juillet incha allah la war a nekk ñoom ñaar ku ci nekk ñam ni nga xam xamante ne bii moom le roi des arènes bi saf. ku nga ko ba pare nag ku ci nekk di yootu waat boobu ndomb tànk muy roi des arènes mu nar a nekk combat ba nga xamante ne bii combat bu neex la nee na su fekkee ki nga xam ne moom mooy euh, Balla Gaye la mu ngi mujj bëree ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo loolu def naa 2019 la woon loolu la journal bi wax nee ba tey ba tey tamit ki nga xam ne moom mooy Modou Lo euh, xaw na gëj ci làmb ju tuuti mais ñu ngi xaar kombaam combat royal bi mu war a bëri ak amaa Balde wante nee na Tapha tamit war na jàkkaarloo ak nga xamante ne bi mooy booy ñaar kon daal ponkal yi ñoom ñëpp ku ci nekk war nga tooyal sa xaftaan ñëw wanewaat sa biir sa bopp ci biir làmb ji. gars yi di bu baax a baax waa ca noonu nag futur adversaire Reug Reug ak Tapha Tine. Uh-huh. journal bi nag la muy xëy di laaj Sa Thiès comment Sa Thiès peut prétendre affronter maanaam la mu war a Sa Thiès war a mën a xaar ñaari mbër yooyu Mbaye Babacar. nee na daal moom bu sañoon day xaar ba làng gi tas gars yi bëree ba xool ñi nga xamante ne bii ñu la war a bëreel wante suñu làmb tey dafa ñëw nee na Sa Thiès su fekkente ne bii dafa bëgg a bëree ak rëg-rëg wala tafaatin ñaar ñooñu il faut ñu daanu ci seeni combat mhm. ndax ñooñu su leen yàlla mayee ndam dañuy xool feneen au lieu ñuy xool Sa Thiès mais Sa Thiès mën na bëre ak yeneen mbër ci làmb ci ki nga xamante ne bii ku ci mel ni Yékini Junior Forza Gris 2 wala ki nga xamante ne bii moom mooy Garga Mbossé nekk ay adversaires yi ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès war nañu mën a jàmmarloo ci làmb. mu nekk moo Garga sax combat bu ñor Moussa Ndoye leen boole daan na Moussa Ndoye. Garga daan na Moussa kon Moussa Ndoye leen boole. Moussa Ndoye leen boole ca noonu nag kii di Ousmane Diop informel la may wax ci journal ba nag nee na mhm. wax mën naa briser ki guy gi le roi du simple. gannaaw ba journal bi sekkeeg moom waxtaan bu yaatoo yaatu moom Ousmane Diop moom mi bëre woon ak Balla Gaye combat bu rëy ba mhm. Balla gay def rotation wër ko ndongo waaw jàpp ci ngembali wëndal ko 59 fois mu nekkoon combat bu neex ba léegi boo koy seetaan day mel ni combat bi tey la ndax ñoom ñaar ay technicien la Ousmane Diop dafa mën a bëri Balla gay na ko randul ma toog moom nag tey moo ñëw di waxtaan ak journal bi mais nag nee na dafa bëgg a dellu siwaat ci làmb mm-hmm. waaw nee dafa bëgg dellu si siwaat ci làmb gannaaw ban gisee jos mu ne moom tamit dafa bëgg dellu siwaat moom nee na combat am ak Baboy combat bu neex la. ba des dara bëgg a dellusiwaat waaw mu mel ni vétéran yi ñoom ñoo bëgg a dellusiwaat mais nag li may wax rek mooy carrière muy mbër muy footballeur ak mu mën di doon carrière kenn du ko ñiit nga war a fa mu neexee wala fa fa nga yaakaare ne war ngaa bàyyi nga bàyyi parce que carrière en général boo ko ñiitee rek leneen mën na la cee fekk. Ousmane Diop yemul foofu waxtaan na ak suñu làmb ci combat bi war a dox ci guy gi ak rëg-rëg. ñu laaj ko ne ko guy gi lan euh, rëg-rëg lan nga gis ci moom mu ne rëg-rëg mbër la ma nga xamante ne bii dafa ñeme entraînement dafa mën a bëre te it dafa dafa dafa dafa dafa mën bis euh, ñu ne ko est-ce que manœuvrer adversaire am bii nga xam ne moom mooy guy gi dina yomb mu ne rëg-rëg amul mbër bu koy jaaxal ci làmb ji ndax champion la te wane na boppam ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, bëri mbapat bi nee na daal combat boobu incha allah jouru làmb ja rëg-rëg li mu liggéey dina ko wane te am na yaakaar ne rëg-rëg mooy jël ndam li te mu ngi ñaan ci yàlla tamit rëg-rëg jël ndam li ci digganteem ak guy gi ragal fii te day xañ a wërsëg ca ah. noonu laay def rek Babacar joom laa jëm sama jëkkër boppam la may xam ne ci journal bi nag ah. stock bay am le 4 juillet diggante Mame Balla ak nga xam ne mooy mbay Gouy Gui nam xam ne mooy kii di Mame Balla il est imprévisible maanaam foo ko xaar rek Mbaye Babacar day génn feneen mhm. ki nga xam ne mooy mbay guy gi nag moom dafa bari ambition maanaam bëtam fu rëy la ko teg ci wàllum làmb mbay guy gi di xale ba nga xamante ne bii fi mu toll nii dafa bëgg yéeg ci ponkal yi ndax nee na Mame du ko tëyee te it gis nañ ci moom confiance ba nga xamante ne bii euh, daan Mame Balla rek moom moo nekk ci xelam nekk espoiru làmb nekk étoile montante wante Mame Balla mag la ci làmb ba pare dun na mag la sax dafa jiitu mbay guy gi ci làmb rek mais doonul yooyu mag mais expérience ba nekk ca moom mën na tromper ki nga xamante ne bii moom mooy maam Balla loolu la suñu làmb wax. kenn dul tromper nag mooy Vieux Sakho Vieux Sakho président jàppandal production la muy xam ne nag mooy. Uh-huh. nee na nous ne sommes pas dans un terrain en inconnu maanaam terrain bi ñu nekk ñoom xam nañ ko bu baax Mbaye Babacar. di promoteur bu bees bu ñëw ci làmb ji dëkk la ca Kaolack ndàngaan nee na nag ñëwuma ci làmb ji pour concurrencer. concurrencer ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy promoteurs yi nga xam ne ñoom laa fi fekk dama ñëw juste pour marquer sama ay empreinte et puis pour may mbër yi nga xamante ne bii euh, benn yoon la ñuy bëre ci at mi ñu mën a bëre trois fois ci li nga xamante ne bii moom mooy at mi nee na damaa ñëw ngir suqali làmb rawatina làmb Kaolack mais xale yi nga xamante ne bii amuñu sensu di bëre ma mën leen tëgg mën leen di wane ñuy bëre nee na loolu mooy objectif kay wane boppam nag mooy nga xam ne mooy soo Côte Socé Côte Socé mu ngi analyser combat bay am ci arène nationale diggante Nongolo ak Cheikh Tidiane xam ne mu ne c'est un combat des surdoués yu xarañ ñoo nar a bëre jour boobu. nee na combat jënd la nee ñaari jënd bu ñu waree daje nag faaw tàkk-tàkk bari Socé moo wax loolu moom mooy euh, ci coach su Fass Ndakaaru yi la bokk. di borom xam-xam ba nga xamante ne bii moom tamit ñu bari nangul nañ ko ci wàllu làmb nee na combat la ba nga xamante ne bii ñaari ndaanaan la. ñaari jinn la ba pare dinañ gis kombaa bu neex nee na seex Tidiane Niang dafa mën a mbapat dafa mën a bëre su bëgg su bëggee génn ci kombaa bi li mu war a def mooy li mu mën et li ko nit ñi xamee mu def ko nee na bu fekkee ndongo loolu nag euh, dafa war a dafa war a andi li nga xamante ne bii mooy xeex ba nga xamante ne bii. mën nañ wax ne xeex bu mu gëmul la sax mais mën na cokkaas ba pare bu gisee buntu jàpp gaaw combat bi jeex mais na daal nee na daal combat boobu noonu nar nanoo gis combat bu neex diggante Cheikh Tidiane Niang ak Mbaye Gouy Gui kan moo ko tëgg Cheikh Tidiane Niang ak ki nga xam ne mooy mooy ndongolo ndongolo sama xarit boobu boobu di Mbaye Yékini damay kontaan moom bu baax a baax ba léegi ca Pala Diop lañ jëm Pala Diop nag combat bay am bu Fass am cee xam ne nee na c'est un derby derby nag diggante kan la Caaroy ak Fass un combat capital combat capital la combat bu mag la Pala Diop moo ñëw di ñu décortiquer boobu la combat nga xamante ne bii borom xam-xam yu bëri ku ci nekk indi nga ci sa xam-xam Pala Diop nag li mu wax mooy nee na combat la ba nga xam ne Coly Faye ak général fas ñoom ñaar ay ndaanaane làmb la ay xale lan ba pare bokk ci làmb ba pare wan war a war a seen bopp ci làmb nee na Coly su ko yóbbu woon li koy digal mooy mu def combat rapproché. maanaam adversaire mu bañ ko sori jege ko bu loxoom jógee rek mu mën ko jàpp daal di def li nga xam ne moom mooy différence bi nee na si yóbbu woon ki nga xam ne moom mooy euh, général bu Faas li mu koy wax mooy mu xeex ak ki nga xamante ne bii moom mooy Coly Faye pour mën ko déstabiliser pour mën a jël li nga xamante ne bii mooy ndam li mais daal nee na combat boobu gisu ci favori mhm. juróom fukk juróom fukk la gis. 50 cinquante 50 loolu dafa leer ba léegi nag brise de mer ak nga xam ne mooy Siteu Siteu bi nag Siteu bu Kaolack la uh-huh. la 11 juillet la war a bëri Mbaye Babacar ku taxawal combat boobu Sidi Jaxate Jaxate Kabayeri moo taxawal boobu la komba gannaaw ba mu tëggee Mbour Géej tëggoon fa assurance ak Gambien xam nga ne ba léegi mi ngi wéyal décentralisation yi muy def dans les régions maanaam di dugg ci gox goxaan yi di fa tëgg ay làmb loolee tax mu war a dem foofu ca Kaolack war fa taxawal incha allah le 11 juillet Siteu bu Kaolack ak Brise de Mer nekk combat ba nga xamante ne bii population Kaolack yépp ñu koy xaar. Mhm. ca noonu nag journal les arènes lañ jëm les arènes face to face ba lay delluwaat bu doon am mhm. lam cee xam ne nag mooy ascendance physiologique diggante gi ne mooy Siteu ak Papa Sow lam cee xam ne nag mooy Siteu ba Papa Sow. 4-0 loolu nag bëgg naa xam lu muy tekki Mbaye Babacar. Siteu ba Papa Sow 4-0 xam naa ci côté mobilisation lay wax mais ci côté mobilisation lay wax mais gis nañ keroog Papa Sow ba nga xam ne Papa Sow bu dal la. Mhm. mel ni dafa jël combat bi yan ko adversaire am bi nga xamante ne bii moo ko gën a nekk xale muy Siteu parce que Siteu keroog moom lañ gën a gis mu mu moo ëpp arñi ci ni mu doon waxee Papa moom mbër la ba nga xam ne dafa ñëw dal ànd ak li nga xamante ne bii mooy tekki. ak tey mais nag mu ngi woon ak ay kàddu yu sew ya nga xam ne waaw yu saf ya nga xam ne heure bu ko heure bu ko duutee Siteu rek Siteu dana xaw a <laughs> dana xaw a bajantuku dana xaw a bajantuku mais loo ci mën di dégg face à face bu neex la woon Boubacar Diallo DJ Boubou su ma ko doon présenté muy noonu na ko loolu ndax les arènes ascendance physiologique boobaa après dinañu ko tekki moom ba mu gën a leer te noonu nag record lañ jëm record la muy xamle 100% de policiers affectés à l'arène nationale rien que pour la sécurité des gens qui viennent la ba may ba mu nekk la nga xamante ni bii képp ku yëngu ci làmb war nga koo rafetlu Ndeye Mbacke ndax ku ne xam ne ne arène nationale euh, làmb ya fa jot a am gis nañ fa ay yàqu-yàqu ya nga xamante ne bii euh, kenn rafetluwu ko loolu tax ñi nga xamante ne bii ñoo ŋànk làmb wala état bi déployé lu toll ak téeméeri policier ak juróom benn fukk ne leen bu leen dem bu leen dikk dëkk leen fii ci biir arène nationale seen lëpp di leen fi fekk ngeen ñuy surveiller li nga xamante ne bii mooy bijou bi nga xamante ne bii làmb moo ko moomal boppam bu làmb amee nag dañ koy renforcer dañuy yokk li nga xamante ne bii mooy sécurité bi mais daal loo ci mën di dégg ak lu mën a xew 160 éléments yooyu noonu foofu ci biir arène nationale mooy seen dalluwaay. mooy noonu ba léegi nag Jurbel lañ jëm Alioune ak Alioune Sène Alioune seen version baptême de feu uh-huh. ki nga xam ne nag mooy mbër ba mooy promoteur ba uh-huh. naa taxawal làmb ju mag uh-huh. après la tabaski kan ak kan la taxawal boobu caski la taxawal ak ki nga xamante ne bii mooy Boy Niang numéro 2 bu Mbàkke Bawol borom guy siyaar borom caaya euh, ji lom de cëgin Aliou seen borom say jaamaane production moo taxawal loolu bu ñu tabaskee ba am am ñeenti fan muy combat ba nga xamante ne bii nag combat expérience la ak la jeunesse ki nga xam ne mooy boobu caski moo jiitu Aliou Sène ci làmb ndax bëri na ak ndaanaan yu bëri foofu nga xamante ne bii moom mooy Jurbel ku bëre ak tanoor bu Jurbel bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Seex Ñaa yaakaar naa bëri nga ak ndaanaan yi nekk foofu ki nga xam ne mooy Boy ñaan nag di xale moom tamit nekk ci 13 combats 12 victoire am benn défaite ci làmb ji nekk xale ba nga xamante ne bi yaakaar naa ne ko du yomb Aliou seen andil ko amateur yi nekk foofu ci eh, ci Jurbel mu war a am ci stade Euh, kii bi stade bi nga xamante ne bii mooy stade Ely Manel bu Diourbel mais ay combat préliminaire yu neex dina ca tegu ki nga xam ne moom mooy jàmmalaay bu Samba dana fa jàkkaarloo ak Modou Lo bu Nguy di combat bu neex ndigal bu Kër Maam Cheikh Ibrahima Fall am gannaaw mën a bëre am fu fulla am fayda dana jàkkaarloo ak booy Boy Remarque wante ba léegi ki nga xam ne Africa Fall bu Samba dana fa jàkkaarloo ak Caatu Touba Ndiarème kon daal bu ñu tabaskee ba am ñeenti ñeenti fan Aliou Sène borom say jaamaane production tëgg na combat bu neex tëgg na combat bu rëy di ka nga xamante ne bi tamit ku jar a encouragé la ci làmb ndax boobu mooy deuxième journée am ma nga nekk Allemagne fa lay liggéeyee mais day jël day jël li mu jot a am ci ci xaalis di ko dugal ci làmb ji pour euh, xale yi nekk foofu ci Jurbel ñuy mën di bëre di mën di gis seen bopp kon jokkoo jàll Aliou Sène jokko njaal aussi noonu laa dafa daal di jokko njaal aussi Mbaye Babacar di ko bégge bu baax loolu moo nekkoon di gën a fas ci xibaaru làmb lan ngi tàggatowee xanaa jaajëfal la jaajëfal suñu caméra caméra noo koy waxee caméra bii di nga xamante ne bii moom mooy euh, Fama Dramé Dramé Kandji Socé déggee nan xeleb géejawaay bi baax na waaye nag daa xaw a kii quoi kii kii kii mooy kan daa xaw a ñeme ko rek ñeme ko ñeme ko <laughs> ñeme ko. mi ngi noonu bëggee nañ ko bu baax a baax dafa xaw a bandi. wuyu la yàlla ko yàlla jàmmam yàgg di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène incha allah. noonu laay def rek jaajëfal leen bu baax waaye damay dugg administration daa di bëggee mat joxum ban naa di kontaan ci moom bu baax waaye dash sama xeese booy bi maa moitié damay bëgg ci yow bu baax a baax. sama doom nga nag nee sama doom jiit la nga mais sama doom nga doom ak xan damay bu baax ah noonu laa def daal di sant di gërëm ki nga xamante ne nii nag sama raq la mañ pro nee naa loo filmé wul rek baaxul noonu laay def jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen. attention ñaar Sa Thiès na ñoom ñaar Sa Thiès boo ñaar jàpp na ko mot ñoom ñaar jéggi ni junior wàcc na jël na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy